ndax Colisée boo ko xoolee jàng ko da ngay comprendre ni théâtre intellectuel la waaye université du Ramadan intellectualité pure la moo tax fële acteur mënta jiitu script waaye fii ku am sa xam-xam da indi ah yàlla yàlla xeeb dolli ah alxuraan nag ni ngeen ko waxee dafa nekkul lu tuuti te yi daje dafa xaw a bëri moo tax man duma jàpp ne alxuraan mën nañ wax ni sax arab tënk na ko ndax man ci ni ma ko jàngate alxuraan c'est l'essence de l'essentiel ce qui fait que bu dul yërmande yërmande yàlla ak élégance am texte bi sax duñ ko ci am ba koy mën a jëriñoo te kon boobaa leer dong lay doon ku yàlla calibré wul ci leer googu doo ci mën a génne li nga ci war a génne mais xam nga ñoo ngi koy wax sànq ne yàlla bu wàcce woon leeru alxuraan ci montagne mu toj mais lan moo tax xam nga am na benn layatul xadar bu ko góor gi doon jàngale fii ne yàlla mbindeef yépp am na unanimité ci ñoom ba mu des nit et pourtant loolu sëwe nit ci alxuraan unanimité boobu yàlla am ci mbindeef yépp moo tax bu ko wàccee ci ci ci montagne montagne bi nangul na yàlla ba pare kon nag lépp alxuraan wàcc ci kawam ci benn façon moo tax foog mu tas ironiquement ci élégance yàlla nit ak dëgër boppam ak mën a weddeem looloo tax moom bu bu bu ko duggee loolu du ko dal parce que du jotandoo lépp il faut que muy sonn di sonn di sonn di jàng di déglu di dégg texte yi xaraf yi disparaître benn par benn bu ci nekk di disparaître di remplacer ko leer ba nga xam ne fu mu tijjeetee téere gi écran rek lay gis loolay différence entre téere gi te suñuy téere ak téere yu mag ñi moo tax bu ñuy laajte bi am na ñoo xam ne li ñu moom ci défi gi mooy déjà tàmbali ci yi dégg ko foofu lañ ci tolloogum am ñoo xam ne défi gi fexe ba incarné baati la am na ñoo xam ne défi gi ni ko mbokke bi waxee sànq te mooy xam nga <laughs> euh, dama koy waxtaan ak Pape Cheikh mi ci benn remarque boo def sànq man damay wax ni mbir bi jiituwul ci xel bi togg mbir bi mu ngi jiitu ci yàlla mi ndugg ne toggal ma nangam yàlla mi ndugg nduggam dem marché indi nduggam ne lii nga may toggal foofu la mbir yi tàmbalee moo tax ku si nekk ak la nga moom ci defi ga moo tax ni nga ni ñu indee ci baatu iqra gi ndeysaan da nga ko tudd sama xel dem ci suñu waxtaan ba <laughs> pour wax la yàlla ay mbiram kenn xamul lan la mais gis nga bu ñuy iqra bismi rabbik ni wasjud waxtarib ku jàpp ne fin la danga xamagul mbir ni mu demee parce que benn aaya wi la iqra wasjud waxtarib bi ismi rabbik moo tax du jàngal déggal la déggal bu la dëgg soxalee di nga ma nangul ci sa ci ci li ma moom man mii boroom weesuwul lii <laughs> ah kon sant yàlla sant yàlla ah xanaa bañ guddal rek bañ a guddal rek comme temps bi moom moo ngi noonu nit ñi ko si nekk ak fi nga war a dellu l'essentiel rek l'essentiel rek xanaa rek xëy na benn mbir bu ma xaw a def ay ree ndax yaa ngi koy indi sàng ci Big Bang maa ngi ci seetaan ndeysaan fan yi benn scientifique ku ma neex la ndax moom ndeysaan ak li mu am ci xam-xam yëpp ak li ko scientifique di respecté respecté li mu gën a sawar mooy ku ko laaj ba xam gëm na yàlla gis na boo ko laaj balaa nga àgg mu ne la ak ko gëm loolu nag bëri na ñu mu dérange ci ay collègue am moom nag fan yii ci ginnaaw dañ ko doon questionné ci seen télescope bu bees bu gaa yi génnee mu mu ne ah suñu télescope bi de gàcce la ñu mujj teg ngay ni ko ah lu tax loolu mu ne parce que boo xoolee univers beeg li ñu jàppoon ne xam nañ ko ci moom mu ne boo xoolee galaxie mu mel ni suñu bos nga xam ne am na ay milliards d'années pour mën a mel ni mu mel nii ñu ne waaw mu ne télescope bi tax na bi fi mu toll théorie bi ñu amoon ci Big Bang ñun ci suñu bopp ñoo ko commencé questionner. mu ne parce que télescope bi daf ñu wan ni am na yeneen galaxie yoo xam ne toll nañ ci suñu toll nañ ni suñu bos mel ni suñu bos te amuñu te amuñu un milliard d'années da wax ba pare ree ma xam ni ree gi wax la te mooy la plupart dañ koy faral di waxee facteur yàlla dañ koy génne ci équation bi te foofu mbir bi du logique yàlla yàllaay wane ni lu ma neex def temps bi ngeen yaakaar ni man moom laay daj ci seen bos bu ma koy defaat du ma du ma ci fekk lu ma neex lay def may buur weesuwul li moo tax sant yàlla sant yàlla ah yàlla yàlla di yokk dégg yi yàlla di ubbi xol yi yokk xam-xam yi yokk leer yi yokk yépp ci mbaax ak ba barke mbag ñu ñoom ah xanaa ba ñu guddal rek te ñaanalante ba beneen kon incha allah ah, kon ñu defaat fatiha eh, ñetti Quraysh falaxeeg naa salaatul faatihi bismillah Inch'Allah. L'édition de